internet Dakar Buzz TV nuyuwaat nañ leen bu baax a baax mbégte la pour ñun ñuy yaakaarloo ak yéen nu ñu koy defee saa su ne ah, tey nag ñu dalaat Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ginnaaw coow li démb ak tey ak ah, gis nañu ko ñu wane nag ne dafa am sextape boo xam ne ah, moom nag la dal waaye itam ay audio yoo xam ma ngi koy saraxu sax naan loolee bu ñu ko génnee ni ñu koy defee rek ngir am ci lu ñu leer ñu ñëwaat seet si ko ba xam yëf yi eh, naka la demee Fatoumata nuyu nañ la ñu bàyyi la nga nuyu ak internet Dakar Buzz yi. ni ma koy waxee jàbb yaayu buur <laughs> nuyu naa la namoon naa la nommoon naa waa dakaar Buzz ndax tamit Dakar Buzz dégg naa defe naa ne fii de lépp di leere mhm. ndax lu waaye waxal nit it xam xam ni tey kan te yéen ci dëgg rek ngeen di dox ak fu dëgg ne ngeen toppi ko xoolul leen ki ngeen di faral ak ki ngeen faral yéen askan gi ngeen faral mhm. askan ngeen leen ñor askan ngeen leen tax a jóg te defe naa ci loolu ngeen ne barki mhm. démboo njaar yéen ngi ba Louga ñuy jaalawaat euh, kooku nga xamante ne mooy muudu di ko jaalawaat soxnaam si di jaale ñëpp tamit waa Louga yëpp bëggoon nañu woon a teew mais xat-xat yi moo taxoon di am contentement ak sant ak ngërëm di sant sénégalais yëpp di beral sant nag sama famille yëpp mhm. wax dëgg yàlla dem ba tey dañoo sonn mhm. ndeysaan ndax ku boobu buggi ku ne xañ mbow la te Fatoumata Ndiaye moom bës daa jóg ci moom rek dee rek ne du génn ci moom da nga bës gis nga yow sax mois doo gis mhm. xoolati lii xoolati lii mais ak ak i bësam tamit wala bës bi da doy na waa moom ak i bësam waaye waaye xam nga tax man dayul waar de pourtant ah, d'accord xam nga tax nga ne dayul waar su mu doon doy waar fekk Fatoumata Ndiaye wala fekk la ñuy wone dañ ko wone ba mu leer nañ mhm. mu bañ am benn trucage gis nga man Ngoné xam nga lu ma bëgg mm. man damaa bëgg gaynde man damaa bëgg ko gëm boppam te mm-hmm. mën a dëggal boppam d'accord mais wala damaa jóg pour yàq la mm. dama yor say vidéo mm. Ngoné dem naa bay génne Ngoné du ma jël photo di ko monter di taf kanam mais est-ce que du pour suturaal la moo tax ñu jël kon taf ko ci ci kanam gi sut man bu ku ma suturaal baalu ma la ku ma suturaal ci barke weeru koor gu tedd gi yàlla ma yàlla àtteeg yow mais ñu ci bari ñu ngi naan nag foto euh, yi soo gisee ñu ñu génne ko. Mhm. ak Ousmane Sonko moo la dal parce que da ngay toog di ko wax lu mel ni xeme. Mhm. fekke woo yëgoo tinoo te chaque boo xëyee yaa ngi live. Mhm. yaa ngi ci internet bi di wax. comme ni ñu koy waxee rek yàlla léegi moom day day day fayu nit ki. ñoo nag ak xam moo la dal moo tax say foto ak say vidéo ak sax audio boo xam ne yaa ngay ñaan kooku ba koy làkk. loolu yëpp loolu foog ñu génn war ko nag wan ko internet waaye la pay tey fii la pay leer. may ma photo yi lii ku ko ku ko monté. ah man fekkewu ma fu ñuy monté ma man maay laaj lii xam nga moo kaayis foofu kaayis foofu. moo defar lii. Ah, moo defar mu bokk da ci Ousmane Sonko. Mhm. Ousmane Sonko tey laa gën a mu nekk keteme Ousmane Sonko. Mm. nooloo wu ma ko a ris par meres. te ñu ñu def ñu def ndànk ñu ñu dégloonte eh, Ousmane Sonko ci palmarès bi gën a néew bu mu am tey jii moom moo nekk maire bu Ziguinchor te yow dégg goo madame le maire. Ousmane Sonko kañ la nekk maire. ci at mi. ci at mi ci weer yi mhm. da nga ne nañ dégloonte kon damaa bëgg ñu tempo tempo ko rek teel fii lépp di leer. d' aw na impôt des domaines amagoo fonction pour comme li nga wax mu mu leer. am na ay militants sympathisants yow amagoo ko léegi fan nga ko gënee riche palmarès. waaw kay merci beaucoup du te pose nga ma question. Mhm. mais ma foofu rek te nga jël silence bi. ay ci jëlal doxalal benn ma Ousmane Sonko bu ma ne maa ko bër gën la ris parmes maa ko gën la ris parmes fuuf ca juddu ca lépp ca mm. doxalin xam nga doxalal mm. Fatoumata Ndiaye tey dañ koo monteel Fatoumata Ndiaye gis ko xam ne xam ne jàmbaar fakk tëdd la mm-hmm. Fatoumata Ndiaye moo dëkku ay xeex dëkku ay dóor dëkku lu ne Fatoumata Ndiaye moo marqué empreinte fii ci Sénégal ak monde entier Fatoumata Ndiaye moo taxaw di xeexal senegal taxaw di xeexal askanam dëgg boppam mm-hmm. Ousmane Sonko lu par ma sokoraamante jacuzzi. Mhm. viol. fekke nga ko. moo ko fekkewul ña ko fekkee wax nañ ko te du benn xale du ñaari xale du ñetti xale. Mhm. nday Xadi Njaay mii rek nee nañ doom de mujjoo yor prématuré ba Ousmane ko jur. Adji Sarr ko boo ma weddee ji na jël xale bi yóbbu ñu def di ko test ADN. am nga ci preuve li ngay wax may ma may ma may ma preuve sul nga jàkkaarloo doyen des juges wax. mais yow jàkka yow jàkkaarloo ak doyen des juges Fatoumata mhm. may ma fi kenn meewul ku mel karamel yàlla. question la rek ak réponse. d'accord yow laay déglu waxtaan rek di ko mhm. mhm. mais mais mais Fatma ñu bari nee nañ koor gi koor gi ci loolu balaa nga ñëw ci li nga wax. Mhm. ñu bari nañ Sénégal ren moom amul koor ndax ba koor gi commencé ba léegi. wàllum sexe ak moo ko def lii moo ko fekkee moo kii rek la ñuy waxtaanee. waaye Ngor Diagne man dama ne bu nit demee bay génne. day génne lépp mu leer naa ngi ni la ñu dama delluwaat ci a gis sama baay gën ris baay Ousmane Sonko par ma es par ma Ousmane Sonko la mu la la jote ca gaño ko mu nàmp ko moom la géex tey laa koy gën a mën a wax lu bon léegi-léegi laa ci jël ci Facebook bi kon danga ko jóg wax lu bon may ma déggoo li ma la wax ndax li ma koy wax yëpp nag sosalu ko mm. moom moo toog bàyyam waxoon naa ko fi ne def dañ ko war a. non non ñu ñu ñu bàyyi déedéet ah déedéet ah déet kay ma doon ma déedéet rek déet affaire de bàyyi ak yooyu kay ma wax la ay nit dañuy seetaan te ay kilifa dañuy seetaan non non pour ñu wax ci li nga xam ne moom moo ñu fi andi mais affaire bàyyi Ousmane Sonko ak keneen ak keneen yem ci ñu yem ci ci ci fee yi jàpp yaayu buur voilà man damay koo xamante ne ku ma cuq ku ne ma cuq mhm. mais ñu bañ a wax ay bàyyi ak ay ndey d'accord naa d'accord naa waaye ma voilà ñu leeral man tiituma dawuma raflewuma yox yoxewuma bu nekkee cagala mhm. nañu laaj Ousmane Sonko ndax Fatoumata Ndiaye a Tampi cagala ndax fi nga toog ni Ousmane Sonko toog na fi mhm. bu nekkee ca cagala

déet xaw ma kan la de Ibadou Ba laay wax damaa fàtte tur bi. mënu maa ko Ibadou Ba damaa bi donc ki nekk ci Ousmane Sonko sàcc bi borom leer yu fari sori yi maa fàtte tur bi dégg nga xam nga ndax la ma loolu. Mm. ndax moomu moomu nekk États-Unis dama fàtte tur bi rek man tur bi rek laa soxla. Mm-hmm. soxlawu ma leneen. Mm-hmm. bu ñëwaatee sa xel nga wax ko dara lu ñaaw wala lu bon damaa fàtte tur bi. Mm-hmm. ma xool. aywaay. Euh, euh, tunkara mm-hmm. tunkara mm. nañ ko laaj ndax man caga laa ndax tunkara amul lu ma yónnewu ci àdduna lu mel nan xaalis dafa doon may xaalis tunkara dem na ba ñama naa ko yónnee sama sa pol sama carte d'identité réseau verso di ma dugalal oto ummi doo na ci dara pour may la ko pour may ma ko daf la noboon waaw may ma rek pour takk ma da ngeen waxtaan ba juboo wala waxtaan lu bëri boobu jubóowuñu mais daf ma bëggoon ba foofu la mën a yem bëggoon nga ko wala bu ma ko bëggoon ma seet moom jour ba ma demee fii aéroport bu na fàttali ko jamono yële passé da mu am at mhm. ma demoon fi euh, mhm. ko yóbbu ko ñu taxaw ñu def vidéo ma def bàyyi bàyyi Sénégal takk masque mhm. ba ñu xëyee la ma tunkara monteer man monteer safu ma ndax ku tunkaraa ma njëkk a monteer ñu ne Fatoumata Ndiaye jox nañ ko passeport diplomatique daw na dem na mu koy génnee benn audio ne maa ci wax ne samay doom dañ leen a kidnappé nguur gee ko kidnappé li may def nii pour lii la kooku di wax ci suuf kenn xamul lu muy wax mm. ma génn ràccal ko wax liñ doon waxante yëpp mhm. teg ay firnde mhm. Tunkara du ci la noppi gis nga mën na ko na nga génnaat leeral mhm. Tunkara li ma la bu amulee ummi ndaw mi di sa jëkk jabar na wax kon xam nga ba xam jabaram de ma de ba xam couleur euh, néegam beeg lalam beeg yëpp ma wax lan moo la woon couleur néegam moom appel vidéo yi ma doon defanteeg man ah d'accord ak ngeen foofu ci appel vidéo romboon nañ foofu waaye dem ci moom ci daal ñàkk fay daal Matar Matar Sène moo ciy kan. Pastef moo nekk trésorier Pastef mais mu ngi en l'ombre. ñu ko xam bariwuñu. Mhm, fan la toogoon. fi fi mooy mais côté mhm, fi ma. Mhm. ma yor la ñaareel wala ñetteel waaw ñaareel. dara caaxaan taxu koo jóg nit naa mën a ko merci. nga bañ ma bañ. ak kanaat. Euh, kii nu tëti Birame Souleye Diop. Mm. nee na ma yow waa waa APR xamuñu sa jëkk ñun ñoo xam sa njëkk. moom doxaanu la. déedéet dama waxoon yu bëri na ma ñëwal ci ñun ba keroog la mu ju yàggul. Mhm. ak kanaat. kon tey jii la ñuy kon tey jii bu ñu génnaatee ne man cagalaa mhm. du ma métti xam nga lu may mhm. ba dugg bois de vocal man la d' accord waaye Fatoumata Ndiaye cagala. bi ma tasee léegi ñeenti at la février lay am ñeenti at. sëy naax sama jëkkër 13 ans dugg 14 ans de mariage. samay doom bi moo leen jur dama ne. man Fane Ndiaye maay défier sénégalais. bi ma tasee ba tey bu fekkee ne góor mas na maa yi mas na mas na maa xam. Mm. na génn wax bi ma tasee ba léegi nag laa wax. Mm-hmm. dafuma ko ndax kenn dafuma ko ndax bët bëtu nit ñi. Mm-hmm. dafuma ndax sama diggante ak sama borom de damay def man en tant que ma Ndiaye. Mm-hmm. may xaar pour la jóge fu baax. sëy naa ba ba fi ma toll nii sama borom kër bi ma tàkkali ko relation bu baax la ñu am. mais c'est tout à fait normal parce ma ndax la am relation bu baax dañoo yàgg. doxaan na ma 3 ans. takk ma 13 ans jàpp 14 ans loolu ñaata at la boo ko dindee samay at. mu ngi may dégg boo ko dindee samay at ñaata at moo des ba pare man Fatimata Ndiaye bi ma génn woon ci làngu politique bi dégg nga ñu wax ma dara bi ma nekkee di nga xam ne may défendre Ousmane Sonko. bi ma njëkk défendre Ousmane Sonko di mere di mere waa waa waa pass waa waa waa pouvoir ndax mere woon fi waa pouvoir dina ñekk njaay jaay njaay ànd ak Ousmane Sonko ñan ñoo naan la dame de fer la la la am na nu ñu koy du Fouta l'Amazone du Fouta. Mhm. kii moo kii kii mooy daaneel président Macky Sall la femme digne lu nekk ñu wax ma ko. Mhm. ah tey ànd naa président Macky Sall ñu ne kon wax ji di ji di nga ànd ak président moo ko waral. loolu da nga lim léegi ñoo xam dañoo nekk Pastef. Mhm. ñu ñëwoon di la di la bëgg si kon macha allah yow da nga jaar. waaw lambu ma de. lamboo. mais mais mais comme comme ni ko waxee léegi ba nga nekkee. nekk maa nekk di d'accord yal na ci yàlla jàppale la dara appartement laa nekk yàgg nga mm-hmm. eh, di ngeen fii ñëw mm-hmm. yoruma appartement rek toog ci mm-hmm. man kese ba ma yoree appartement damaa jël samay mbokk indi te indi yor leen d'accord yor samay doomu mag yor samay samay mbokk ñàkk fay samay mbokk ba suñu koo gis si man ñooy ñooy rey seen bopp ma ne leen na seen xel dal ndax man mën naa tudd ma tabaski man Fatimata Ndiaye ku ma yëg kuréel rek maa fekk may nelaw mbaa nga bett ma ci duus bi may solu ndax man moom ku ma ku ma wax météo tamit di nga defaraat samay wax. moo tax nga moo tax nga nga ñëw nii pour leeral ci Dakar Buzz comme ni nga waxee lépp fi lay leeral. léegi lim nga fi waa Pastef yooyu ne dañoo ñëwoon euh, pour bëgganteeg yow mhm. est-ce que nekkul xam ne nekk nañ ci beneen parti mhm. wala ci yeneen mouvement ñëw bëgg si la mhm. waaye li nga xulawul ak ñoom moo tax li waxoo seen tur wala du loolu dégg hmm. parce que du question de guerre parce que si guerre lañ nekk ko a waxee guerre la la doon nelaw ci man. Mm. yee nañ ko gaynde ga la ñu yee man Fatou ku jël ku jël sama avance dangay tëdd pom. Mm. pour man delloo delloo ma avance mbaa di reculer jamais. kon pare ko bu bàyyee. bàyyi lii nii damul say laaf photo yeeg vidéo yeeg yooyu. wala ma jox la ndox nga naan wala dangaa woor. damaa woor ay waay yow yow pour lii nii. Eh. war maa mën a fere wala mën a damm samay laaf. ma samay laaf li koy damm yombut man nee naa guy bu ñu samp laa samay reen dañoo dëgg man seppi ma yombut. Mm-hmm. pour léegi nii. Mm. yëngaluma ferante wu ma ñeenti xam nga dama wax nii sama famille ak ñi ma bëgg. d'accord sama téléphone gis nga ko bi nga ñëwee ba tey. mu ngi mm-hmm. toj dama mm-hmm. ko mujjee def mode avion. waaw nit mbokkam la am tamit. bu ñu déggee ne tey am na ñu la jiin c'est tout à fait normal que sa famille. waaw inquiété surtout nag yu mel nii. waaw léegi ñu ñëw ci photo yi. Mm-hmm. ak vidéo yi parce que dafa ñekk benn boo xam ne ojo la. boo ci xam ni ñu ngi ciy wax balaa audio bi dañuy ñëw ci lii. Eh, eh, ci ci ci ci photo yi mm-hmm. mu zoom. photo yi moom foog naa ne eh, tey Sénégal yi yore nañ ko. waaw mais ko zoom dafa am ma bëgg a wane. ayca wan wan zoom mais am na ci benn photo boo xam ne ndaw si dafa bëtt jumba xam ma bëggoon xam. dafa jumba yow da ngaa bëtt wala bëttoo. boo pare ma wan ko si biti. ah boo pare ma wan ko kafuma. bëttoo mu fatt tamit. waaw ba pare man xam nga. may ndax bëttoo mu fatt. daan man sama bëtt yëpp fii la. ak mm-hmm. fii xanaa. jaaw baa ngi ba pare xam nga fu mu defee erreur man damaa subir ñetti opération. man sama biir tool gis nga xoolal kii dafa weex mm-hmm. ma may rek takk. ah weex nga defaat ma te macha allah. sama kii kii dafa am benn kii bu ma ma daw ba man man fi ma nekk man naaj naaj. guddi bi. naaj guddi laa di man ko si man naaj guddi laa di xam nga tax ma nekk naaj guddi. Mm-hmm. man di. Mm-hmm. man ay timpitampa ba jeex laa gisoo. léegi jumax bi moom waxuma ko jumax bi. d'accord ñu ñëw ci ci kanam beeg greffage beeg yooyu. léegi mu ngi nii. Mm. kanam gaa ngi nii. amoo perruque bu xaw a mel ni frisé beeg yooyu. am naa frisé. Mhm. la. Mhm. macha allah man ma nettu. léegi waxal ci photo bi kay benn. Mm. maa bëgg nga jël ween mhm. dafa ndaw. nuroowu leen yow dafa mag. xool ma man ma mel ku nàmpalab sàcc ba toog kii weenam dafa ndaw man sama ween rëy. benn daanu ngeen fii beneen bi mooy. Mm. kanam gii. damaa bëgg ngeen dindi li ngeen ci taf. ñu wane photo bi yëpp ngeen génne kanam bi carrément ñetteel ba mooy kii dafa crayon crayon noir crayon marron. Mhm. man tatouage laa def. na ko Malick jël lu mu zoom mu zoom ko zoom ko. day day zoom photo bi zoomaale la. <laughs> man tatouage 15 def. Mhm. tatouage 15 def. Mhm. dégg beneen bi mooy ndaw si dafa ñool boo gisee ay cër. te yow ndaama nga man damaa gàtt maa ngi nii laa toll. beneen bi mooy maa la sumal loxo bi gis nga sumal fii loxo bi ngoone fii rek jàppal ma takku ma sum. loxo bi sumaale sama fii. xool fii ndaw si daanu ngeen bii baaxul. ngi doy na wala ma dolli. mu ngi. sama loxo ngi nii andi loxo ndaw si yow. Mm-hmm. andi loxo ndaw si. loxo ndaw saa ngi nii. andi loxo ndaw si. du gis nga. Mm-hmm. defuma ko nag pour di justifier wu. d'accord wala di lii sama famille ak ñi ma bëgg tax ma koy. mais des na beneen photo encore mais ma pareegu ma photo bi benn la de. Mm-hmm. ñaar la waaye benn bi rek la. mais ñaar la ñu beneen bi audio bu ñu teg la dinaa ñëw ci audio bi. dañu leeral fi ba pare. gis nga man Fatimata Ndiaye damay jég pire. léegi photo bi moom fan la jógee. photo bii nii xam nga fan la. vidéo mm. la lii du photo. ah lii dañ ko capturé vidéo la yaa ngi fàttaliku. Malick comme zoomoon nga bee zoomaaleel bii rek. zoomal zo andi ma jox ko sama caméraman Malick yow lay caméra woon kii mm-hmm. ma koy toggal comprendre nga. Mm-hmm. yaa ngi fàttaliku bi may def conférence de presse fële ca ca fee tuuti café Dorom. Mm-hmm. ma fay def conférence de presse ba am ñu doon woo presse bi. naan leen. Fatimata xaaral ma vidéo bi laa lay génneel. Mhm. boobu gën a wóor bii. ah waaw bi am na vidéo. vidéo la waaw génneel Sénégal yi xool tey Sénégal ñooy jugé. vidéo la ko ñoom ñoo ko def ñoom ñoo defaat photo mais vidéo la ma demoon de ñu waxoon nañu conférence de presse ba ñu ba ba ñu wax ba ñëpp a ba ñëpp di ñëw. Mm. ñu topp di woo ñoom ñu topp di wootee waa. presse bi ñoom ñaan. bàyyi ñasta woon. Mhm. ak ñeneen ñuy woo ci waa presse bi ndaw si tukki na dem na bu yàgg. conférence bi amatul. ñun de bokkuñu ci ñu ñu woo nag. waaw dafa foog naa ñun moom ñëwoon nañ ca. conférence de presse woowaat ñëpp. après na siraat vidéo bi naan leen yàq ngeen ko fekk boobu maa ngi sol lii langet langet laa soloon doon togg. di mhm. man leen yàq ngeen ko li tax ngeen yàq ko mooy mooy man ba may kii nu mu tuuti ba may ba ngeen di wax lii maa ngi fii nii maris di togg ba ñu bari ne ma yow waroo woon a génn ak lànget gi. Mhm. yëre yëre langet bi may leen ma de. mu ngi fii. ñu ngi lay may xaaral rek. Mhm. mu ngi YouTube mu ngi fépp ñoom xam nga lan la fen dañ ko harmoniser wut. Mm, kon fen dañ koy harmoniser dañ koy harmoniser boo demee bay fen. Ah. ba mënoo ñàkk am na ñuy di harmoniser nañu harmoniser seen i fen fen day fen koy dégg mu déggu. da koy defar waaw da fen da nga koy defar. d'accord waaw kay fen dañ koy harmoniser. Mhm. may ma rek tey la lépp di leer yéen doo leen ay bandi sax daray woyu topp leen. Mhm. nee naa la ñun euh, tere express ba mu ko bii. Mm. ñëwul ba gaar bu fii rek wàccee konkorong wàcce kew wàcce wala dàmb guróom gi rek ñoom ñu ne cëpp wàcc lu wàcce wale ñun dama ne bi teree espèce ba bokk bi jaaree fii ñëwul ba gaar ba rek wàccee dàmb guróom mhm. wàccee konkorongam ak ak ak ak kewam mhm. ñu ne cëpp wàccaale ci déedéet ñu giddub jëtt gi dëkk bii lañ d'accord nationalité sénégalaise waa mhm. kay yéen ñu mun mënu la ñoo mënu la ñoo gàkkal yéen may ma rek may leen ma tuuti day la lépp di mais doo leen topp ngeen wéru leen laa laalaal leen feneen fi ngeen laal baaxul utaal leen beneen méthode méthode bi doxul kii daanu ngeen dëkk daanu ngeen daanu ngeen war ngeen wanoo defaat ay consultant ñu consulter leen ne leen ndax lii dina ci ànd ak yooyu ba ñu leen waaw mm. ngeen di door a ngeen di door a kii nu tuuti ngeen koy door a lancé bi ngeen lancé baaxul dem leen xoolante waat seen technicien bi da ko war a dàq technicien yan ki leen monté lii mm-hmm. dañ ko war a dàq di technicien bi technicien bi technicien bi dafa d'accord. tey bu yeneen génnaatoon noonu ngay. ban attitude ngay am bu génnaam assumé ko xoolal xoolal. Mhm. gis nga may ma rek xaaral lii lii maam Ndiaye la de. Mhm. xaaral. Mhm. mën nañu xool ndax fi nga nekk ak euh, kii bi benn la voilà. loolu foog naa ne Sénégalais yi ñoo ko. xaaral xaaral xaaral. xaamu tegaat ko nga mën a zoom ñaari waaw. Wanadjalewa, wanadjalewa. Mangi? Mhm. Liyay bi. kon ci vidéo bi lañu capturé. liyay vidéo ci vidéo bi lañu capturé lii photo bi langet yére langet laa sol. ma nekkoon maris di toggal sama sama sama sama tante. yow man mbaa xam nga ne bu nekkoon man damay assumé. bu nekkoon say photo nii lañu ñu barke sëñ baabakat ma assumé. nga ne yow la. barke salaatul ala nabi yàlla naa gën a yéex yéex si xeetu Seydina Muhammad ma assumé. damay jigéen nag. parfois mën naa soxla saa bopp. mais yaa fi wax léegi ne ba nga amee. kii ba léegi waaw loolu laa la dama wax mais comme ngoone bu ma contredire. Mhm. man la ma wax man mi toog ba jàkkaarloog yow wax su ma damay toogaat jàkkaarloog yow wax man li may wax dama dama di jigéen. Mhm. parfois mën naa soxla sama bopp bu ma neex def lu ma neex. Mhm. jigéen laa comme jigéen ñëpp. waaye boobu ba tey du nit laa wax góor boo xamante ne mos ngaa fóon Fatou Ndiaye Fouta Tampi sa génnal wax may naa la autorisation bi. boo mënul wax yónni sa mbokk. kenn mësu la fóon. man la bi ma tasee ba tey kenn mësu la ma tasee ba tey. léegi mu am ñeenti at man la góor bu ma fóonee gémmiñam ak sama gémmiñ na génn wax bu mënul wax. na mhm. fexe nag ba assumer jox ko ay mbokkam ñu wax. ma su si prête. Mhm. dawuma dara te Ngor Kaama xam nga gis nga lii. Mm. teeñ bi la rek yan bi ñëwagut pour maa ngi waa Sonko. Mm, am na lu des ñun ñëw nit ki dafa guñu dara. ñii mm. dafa guñu dara tunkara moom monté lu ma fii tunkara monté wu ma fi. mais est-ce que da ngay plainte parce que ku ñu def yu mel nii parfois di nga plainte am lu la metti looloo metti sama famille naan ay xaw ma naka cyber criminalité cyber criminalité waaw ñu xarañ na fa ne demuma fenn bougé wu ma fi yotaa mhm. damay dox samay dox continuer la ma doon def pelantu ma defuma dara mhm. lu waaye neex na def mhm. waaye foo leen defe rek sama làmmiñ bii dama ko sama poste de bi laa waxaguma fi isi repose maa ngi ba ici repose mm-hmm. bu ñu dawulee du ma daw ay góor lañ may jigéen dafa am ñu xam nga ñoom dañoo nekk Europe di def mm-hmm. di yónnee ñu ne Sénégal man Sénégal laa nekk ndakaaru njaay jël job bi juróom-ñaari penc ñaar yi te di fi wax li ma fiy wax di fi dox li ma fiy dox te ñu ciy teg seen bët duñu wax xam may xaju bal xoole mm-hmm. dañuy mboote duñu màtti waaye damaa foog ne boo demee ba dugg bay sutura amatul lu dem ba dugg internet def si kanam nañ comme te man nag beneen bi na ñu ñëw ci mhm. audio bi. moom laa bëggoon ñu ñëw ci sax. fi ngay yow sama kër fii sax defe naa boo fi duggee da ngay gis rek laay laaj. Mhm, da nga ne raciste de yow ak ñoom. ñoom a benn mooy dafa am question rek bu may laaj internet yi. Mhm. sama fay bu fekkee xaarpulaar la mu def ma lu ma lu ko metti lu ma metti du ma wax ak moom xaarpulaar benn yoon. wa ilaa ma wax ak moom olof benn yoon. waaye ma expliqué ci xaarpulaar ba pare. dellu expliqué waat wolof. tegal ñu audio yi comme ni nga tegee xaaral balaa teg audio yi mu wóor nag may bàyyi tey tey tey doo ma de. ba tey da ngaa xëy dara la danga may bàyyi rek ma wax. Mhm. bañ ñàkk ba damaa résulté ñëpp jël la. ayca kon waxal kon bàyyi ma ne su ma demee bay wax ak góor. Mm. benn mooy góor bu yor say vidéo yor say photo du benn audio nga koy yónnee. Mhm. di nga ko saraxtu di nga ko ñaan te xëy na amaana du ñàkk fu problème bi commencé. nañ ma génnee problème bi fu mu commencé teel micro bu baax nañ ma génnee problème bi fu mu commencé mooy audio yi fa mu njëkkee mhm. xanaa kay kooku mënu yor samay vidéo yor samay photo may jooy may jooy ci benn audio kese mhm. na ko yàlla na yàlla àtteeg yow rek beneen bi mooy mm. laa ma ñu Fatoumata Ndiaye amu ko ko xamut sama laa mi ngi ñëpp ko xàmmee laam bu saf nga yore waaw ba pare nag sama naam ñëpp ko xàmmee man mën na mën nañoo imiter ku ne moom des ñaar nit ñu mën a imiter Sénégal Farba Ngom ak Fatimata Ndiaye mhm. sunu laam ñi bu ñu waxee ñu xam ne ne wax nañ léegi ñu lu baat bi. déglu ay ca tegal teg ko ci micro bi. xool fi day ree. Mhm. xaar ah day ree kon di jooy fii day xaar leen déglu leen de. dégluwaat mhm. leen jëlaat leen fii. Mhm. jëlaat leen fii fii day ree dafay mel ni kuy jooy mais day mais dox seetaan leen rek. daa mel ni expert nga nag may ma rek yow yow déggoo ma <laughs> man rek. Mm. <laughs> tey de lépp di leer ñii laal nañ laa ko defati. kon kon kon Fatma balaa ñuy déglu audio bu ñu monté bu ñu monté wu bi loo ko tegalee di nga xam. waaye yow fii nii. Mm. dëkk bi. yoo xamee wu sa man mi boo waxee man yow ngoon yow rek yow da nga di journaliste rek waaye yow sa boo toogee di wax ak Fatimata Ndiaye ngeen di aujonte mhm. xammee nga baatu jëlal sama audio Dakar jël bii ko mhm. di nga xam ndax Fatimata Ndiaye wala du Fatimata Ndiaye d'accord tegal ñu am déet mhm. gars yi jëlaat leen fii jëlaat xaaral ñëwaatal ñëwaatal yow ñëwaatal ñëwaatal non ñii aayuñu barke yonente bi ñii aayuñu ñii xam nga lan la mhm. day saat dañoo daanu te dañuy daanu moo ñaaw mhm. boo demee bay monté au moins sax dañu xool sax ku ku xaw a diis baat comme man xaw nu ak yow baat waaw xaw nu man baat tuuti sax au moins mhm. mais fii liñ fi daanoon dafa ëpp non cuune nañ ñii cuune nañ dégluwaat den o oh, xaar xaar lu ku ma yàgg ku ne nag maa xamul affaire ay weeral def daal yàlla ak yàlla ko dagg bàyyi naa la jàll yàlla bu la mu dagg foofu. Mhm. ana li ci topp. mën na am dañuy génnee. nañu gaaw benn xam nga audio moom dañ comme audio Sénégal moom dañuy génnee benn kon nañu gaaw suba ñu génnee beneen. kon yéen waa internet yi ñu jox mhm. leen rendez-vous kon boog mooy premier audio. waaw. go euh, guerre des audios. Mhm. avec Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi premier audio. ñu xaar deuxième audio bi. d'accord barke yonente bi man xam naa ne waa Pastef nekk nañ ay jàmbaar yoo xam ne. Mm. ku leen tëkku ku ne mm. ñu dégaale koog yow te xam naa duñu delloo avance mm-hmm. te arañ bu ñu dem bu ne mm-hmm. danañ géer géer ga dañuy bëre bëre ba soit dañ leen di daane te buñ leen di daan ci ngor lañ leen di daan ak fula ak jom mm-hmm. ak gëm seen bopp nañu fexe ba buñu dellu gannaaw d'accord lii mm. la ñëpp di xaar ci Fatimata Ndiaye dox leen ko ba sus ko bu loo xamal ci Fatimata Ndiaye rek c'est occasion baa ngi nii c'est moment ou jamais génne leen ko ngeen tëj gémmiñu Fatimata Ndiaye ngeen rey ko à nga noppi waaw ma noppi. d'accord waaye kaay ma xamal leen ku ci yàlla dimbaliwul ba génnewul audio wala génnewul vidéo Fatimata Ndiaye mu ngi ñëw de te barke sëñ Babacar beneen façatu Fatimata Ndiaye la Sénégalais yi na la gis. da nga nga soppeeku. barke salaatul Faati te bés bu ma ñëwee barke alquraanu karim Pastef bu ñu dul wàcca lànga gi. Mm. lu ñaar ñi raxasoo ma sukk naan ko. menace la wala. du menace de man aw ma jotu menace. Mm-hmm. mu ñun ci jot a jëf du dañuy geer mhm. geer gaa ngi doon sax mondial d'accord woon na njaag njaag dafa nangu wóor a ñëw waaye njaag a ngi nii faax toog mhm. loolu leer na fas yéene ñëw wuy sa leen gis nga mbir boo koy def am ci lii teg ko tegaat ko yóon xoolal ñi nga wóolu nga yónnee leen ñu jël mhm. même bu nekkee samay live yi may def ñu xool ba mu leer leen ñu xam ne lii sax xaw naa otaatik ñu teg ñoom ñooy contredire seen bopp Ousmane keroog defal ma audio commencé wax rek ñëpp ne ku yii kii du Fatoumata Ndiaye ñoom te ñu def lii kon ça diir dire ñoom seen bopp sax fenloon nañu leen Ousmane Tounkara. d'accord lu ko fi jar. Mhm. pour bëgg maa yàq. Eh, sama ndey sama ndey sama ndey daa jóg fajar. Mhm. sama ndey ba mu jógee fajar di ñoom seen ndey dañoo tëdd biddanti. sama sama baay waaw. pour man. Mm. xam nga parfois dañu naan da ngay jéng doo laal su man fi ñuy jéng ko laal. parce que <laughs> Seydina Mohamed. loolu leer na Fatoumata. xoolal takkuma. sanguwuma barke sëñ Babacar. ah mën nga naan de. bu fekkee mas naa naan dara yàlla bu ma daal naa gën a yées si xeetu Seydina Muhammad. waaw sama yaay yónnee na ma damay yee damay jóg taxaw wane ba pare sama yaay yónnee na ma ay garab masandi man ñaar laa gëm sama bopp ba mu jëm ñett yàlla ak yonentaam bu tedd bi. Mhm. ah borom foto bu mag bii nga fekk ci biti sëñ Babacar. Mhm. bu ko weesoo sama waajur. ngoone damaa am ñaanu waajur. Mhm. bari nga ci moom. man ji maa ci raw barke man benn sëriñ laa am sama aduna ma gëm ko wóolu ko lu ma jox lu ne mbaa lu ma ñaanal lu ne du yendu bay fanaan mhm. muy sama yaay muy sama lépp su ma jàkkee ba jàkk dama yëg sama téléphone woo ko mbaa ma fekk ko ba fuuta mhm. sama yaay damay ñaanal bay jooy te ma am ay mag ndëkk góor ne samay mag nit du leen tëj bët mhm. bu ñu waxee da nga naan kii mi nga fàtt yow daal yaa ne bi di lëmbee dañ naan ñoo Fatimata Dia bokkuñu daal samay mag duñu wax parce que Mouhamed suñu taawu ka daf ma mere fi may wax ak yow nii léegi mu mat weer waxul xam man mhm. sama rakk bu jigéen mooy xamante sama rakk bu jigéen boo gisee mën na maa boot ànd ak man mhm. sama rakk bu góor waxi noppi ñoom ñëpp sama famille dañoo mer mais lii dañuy gën a metti mhm. ñu ne man tey damay araamal politique bi bàyyi défendre Macky Sall ñu dogoog man te man damay nit koo xamante ni du ma xoqatal dellu gannaaw waaw ah, waajaguma waajaguma ma président ba 2035 d'accord loolu